Cobaas drapeau Fadel Dakar Buzz social kii wane waate nag ku jël bésam damay ragal yaay romb poobar waaye booy Jobaas mii ku dégg tur wi xam ne turu cosaan la waaye Jacob Balde boo ko gisee ngemb fulaado bi xam ni Fallaye Balde ñëw na waaye Liss Ndiago la muy tuus bari na xanaa xamul ni bu paree mooy bëre. la muy tuus bari na mani booy jobaas mii Jacob Baldé na ko jox cër booy jobaas nag ko delloo nee nañu quatre appuis jël la waaye ay kuñ dóor nga daanu yaag say mbokk ko yëg kon fii ci quatre appuis ku fi quatre appuis nu wone ko kuñ dóor nga daanu it nag nu wone ko na nga moytu mbot mbaa wóyale mbaa jàllale xatar bi nag dañ ko fi interdit fii lay leere rek lay baaxee ma ah moo ku ko tudd waaru Jacob zil bàyyil gone gi balaa avertissement yi bari ci moom ngembuk fulaado gii pëluk fulaado yoo ko doon bëree bopp maamam Fallaye Balde andi ko fi Tafa mbër ngay saxaaral réew mi yëpp ba duñ ne Jacob arbitre siflé waat na Tapha Mbeur nee na na gaaw Boy Jabaas ak Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé ñamante nañu Baldé Boy Diobass Boy Diobass Jacob Baldé ñamante nañu yoon yoon Jacob Baldé sengoor yëpp bàyyi na waaye sengooru Boy Diobass ba mu ngi ci moom Jacob Balde Boy Diobass Jacob Balde waaye ngeen demee ni Jacob Balde mii jar tëj ci biir néeg di gaawalay combat lu waral loolu doy na waar parce que. Jacob daa mel liirul li muy bëre nii day chaque instant. loolu liirul liirul jeu bi. ba pare saa buy génn day te moment bi ñu booy bi coup bu koy jox nii bu moytuwul dana ko jël wàcc. te Boy Diobass ay dóor bu teglantee mën laa wàññi. da lay sonal koy lii di ko dóor ku. parce que mu ngi koy xool ndax saa yu gën da jëlaale ku. waaw ku booy génn di ko jël mën na lay indil daanu. mën na la indil daanu ndax ndax bopp bu ci dóoree sidit bi suuf la jëm. waaw ah. boppay nit ndax tànk bi day nagam. mais yuur la te. waay waay baa xam nga ne baa xam nga ne waay waay waay waay dëggal ma. baa xam nga ne ku man laax bu tànk dama koo ragal. <laughs> bu ko góoxee foog maa ngi waaw lii saafee ma ko waxoon te cee saafi mbër. na ma corosé menton. mooy dindi téere bopp. tul pharmacie di ko jaay. te booy te boobu téere bi watt na de. ndax gën na ko ba ngi doon. waaye booy jabaas a ngi doon. booy jabaas jàpp na ko booy jabaas jàpp na. jàpp na waaye sago ba ngi xeex. sago mi ngi xeex sago ma ngi doon. booy ci sago di door nay liir. waaw day liir day liir xeex bi la gën a la gën a privilégié. voilà te loolu du yoon loolu du yoon. bu dooree daa war a fiir ndax booy da ko sàcc da ko xaw doole xamul fu muy jaar mu bëgg moom mën ko bët nee ko wax naa ko nee ku xool ñaari jëmm yi da ngay jàpp waaye ku xam fës maigre xam ni booy jobaas mi néewul kattan déedéet doole déedéet moo si combat bi moo tax man bu ma doon bu ma doon combat bi Jacob damay damay damay wàññi dóor yi moo tax Jacob ma parce xeex bi na koy liir na koy liir na ñor moo gën a wóor. ndax maa ngi bu ñëwee day ah, li muy fecc te war a bëri après combat bi ndax du ko wàññil énergie. Ah, loolu moom loolu si jaaxal déedéet. Ah, des na des na beneen combat mais fecc day wàññi poids wu mbër. waaw yi même mag ñi nga xamante ne dañuy bëre léegi ñu ngi commencé comprendre ni énergie bi ngay joxe di bàkku def ko si biir lamb ji moo ko gën. ma wax la benn mbir. waaw saaboo dooree kuu ci ponkal mball ko 5 kilos moo la rëcc. la wax loolu. boo feccee ba tëb loolu lay lay 10 kilos ngay ñàkk. xam nga lu tax mu nga neex ma da nga xam fu muy xoyam xoyame nga fay laal sa loxo. dafay laal yéenay samay dee. yow parce que. waaye nit ko ba premier coffre dafa am deuxième coffre am. muy suuful ak deuxième suuf. mais lii bu lu baal fecc bu métti bii. ndeysaan arbitre siffle esprit comité daa daw de. xam nga ni lamb endurance mën naa may ndam ndam lu ne mbër. waaw bañ ne sax dañ koo jàpp ci galas waaye endurance mën na la cee génn. moo la Serigne dernier moment. waaye sëriñ dafa am fu mu yem. Papa Sow Papa Sow mos naa wax ni. Ipo Ngaari mii ba ma nekkee njulli. moo ma jox laaxu diwtiir. Oh. aji Touré mooy soxnaam di sama yaay. ñu bokk dëgg ca Fass. boobu ma ngay liggéey Malboro. xam nga lu ma rey. mooy trio bi. yàlla na ci yàlla def barke. parce que nag ñun amaguñu ku ñu remplacer mais man bu ma leen gisee rek samay ram day daw sama xel dal yal na leen yàlla defal dal yàlla na fi yàgg mu ngi noonu ndeysaan wax nu lu am solo daa yàgg ci làmb lii nga gis ni mu wax nii uh-huh. l'union fait la force dëgg la na lii la Jacob uh-huh. ba ngi togg lu rëy Jacob ba ngi togg booy Jobaas booy Jobaas ah Jobaas liggéey na rasu na ràcc na lii mën na fi xew. lu ne waaye Jacob na la ma amoon. waaw Jacob takk na ko encore. mais takk bu baaxul waaw da koy perte. Oh. da koy perte xale bi da koy joxoon wet. da koy vidé da koy vidé. bu ma imposé na récupéré. waaw bu ma doon moom noonu laay def. damay taxaw tuuti suuful. doucement. fi mu mbërëntaan la la de. moo tax mu yegg ko waaw booy yu bërikat la moo fa yeggoon la. ay ras yu dëgër a liggéey. te <laughs> arrière yi waaye may na.

waay Jacob mii waay Jacob Balde mii xanaa dañ ko ne xeexal waaye waa man man man dama am lu ma seetlu. mooy Jacob daa mel ni bëri bi da ko arrangé tul. waaw moom daa mel ni daa jël xeex rek def ko kër. ndax li mujj. waaw daa xeex. li njëkk mu ñëwaat indi. xeex même xeex. te sànq daa bëri daanul booy jobaat yegg ko fu sori. ma defee ne xanaa dañ ko ne xeexal li ci des. waaw xam nga parce que gis naa léegi papa ji dugg si biir géew muy Jules Balde. waaw am na lu ko dee. Mhm. xam naa dafa na accéléral bëri bi. Mhm. dul ko ay kuy dal. pour mën a mën ko jumloo. dëgg la waaw te xam naa kii du ko nangu. xam nga léeg-léeg da ngay toll foo xamante ne nii dañ la naan bul bëre leen. waaw xeexal indil ko seytaane bu dawee jàpp bu dawee song si nga jàpp bu def li a def. xam nga ne ay xel bu baax a baax dóor yi ci menton waaw xam-xam boo amoon da koy dàq une heure de temps maa la wax lu ni mel boo ca gaawul dëgg doo jafandu mais am na dóor boo fàtte muy ban dóoru tempa tempa mooy li ma la wax xam nga ne buñ la dóor a mën a a daanu xam ni ah. moo moom lañ daan wax talaata lu ma laaj ma ne ko lii la baa xam nga ni baa xam nga ni tempa talaata tempa buñ dóoree ku la yoreel bor sax da fàtte looloo talaata da ngay takkal keneen moo tax ma ne la dóor day réeral xam-xam. tey loolu. bu la tey yàlla. boo la la yóbbu poche bu la dóoree da ngay takkal keneen. waaw dóor yee mit dóor yee mit. moo tax ànd ak ànd ak ku jub waaye xam nga ni. amiin waaw xam nga ni combat bii. liñ ci doon séntu dafa mel ni gis nañ ko ci. waaw ndax combat bi ñëwul nag jeex. déedéet. boo xoolee boo Diamass mi nga xamante ne moo ñu woy wàccal ci suuf fa ngay wàccee fële waaw mu wàccee doo ko wàcc leen lay wax léegi nag booy sogo sekot bi mu koy dugal laa ko digal hmm. déplacement latéral li muy def nii hmm. su la ko mën naxee daw këf ko waaye damaa gis daw na xoolal xale bi la muy yëngal xoolal xale bi la muy yëngal gis nga Liss Ndiago ngay wàcc ci suuf waaw waaw ay séance waaw gis nga waaw mu ngay jël épercule de waaw ñaari xale yaa ngi bëre Zako ba ngay jël épercule Zako a muy toll booy Jobaas te du ko daan ma waaw waaw mais lamb ji nag day am lamb joo xam da lay të. waaw waaye bu doon noonu nijaayam. day am cey Ama Balde. baayama. baayama. cey Ama sa maam Fallaye benn bëri la bëri mu metti. muy mm-hmm. contre guy guy gi. dafa bëri ba fitee boppam ñu daan ko. waaye cey moom Malick ñaa tamit. non boobu fitu ginteegee des ci moom. ñu bëri ci la xamee ni mën naa jël Modou Lo. mu bëre ngor. daa dóor Malick ñaa maa ñaar bëre jëw dóor ko ay coup. Mm-hmm. mu remise ko Malick ñaa arrière fekk ne kawoon mu fekk ko fa parce que daa liir dogal daa moytu coup Malick Niang fayu ci ay coup liir ko bañ mu yokk ko nga mbëtt boo koy dóor doo ko dóor si ndigg déedéet da ngay laal bopp bi waaw laal bopp mu matal mu mën koo yëg <laughs> jeex na la man ndekete <laughs> ay yaat ma gooto gooto gi ma doon dégg yàqul deru bëy mosu koo yàq ndekete gooto yi yaat ma yàqul micro <laughs> lii bilaay gooto gooto yàqul deru bëy waaye gooto yaat ma yàquli wax waaw ma galay xam nga lamb dafa nekk loo xamante ni. da nga koy liir. dëgg la ñaari xale yi ñu yëbbale nii. kon nekkul ni leçon rek la ñu war a liir. déedéet ah te tubaab nee na tubaab nee na tubaab dafa chaque situation. il faut ah. trouver une solution. dëgg la mooy lamb ji. mooy solution. ndax sa ki moom mooy Jacob. jéem na ba sonn fu mu jéem saa dafa tëj porte yi. dëgg la léegi mi a nax feneen mhm. léegi solution bu muy trouvé nag day fekk lu solution bu wóor la xam nga tey jii bu dee mbër bu mën a dóor la dañ la naan jege sës ko rek dëgg la fi ne nii nag booy jobaas sës rek da sës rek moo tax mënatul a xàcc bay dóor mënatul liggéey tubaab bi teg ci ne il faut reculer pour mieux sauter pour mieux sauter Jacob mu ngi reculer waaye li muy reculer doyul pour bu ñëwee a a sauter ndeysaan bu mu terminé combat bi kër Fallaye laa jóge déedéet na fa bàyyi jox leen xoolal fi mu tolloon tollaat su doon may moom loxo bii booy jobaas fàttee dama koy teg tegal ko sées moom lu mu a te moom moom bii mën na ko tex waaw jobaas ko wéyalee ko dugal waay man yi yii ñuul na de ndomba yaa ngay dagg yii ñuul na fi mu jàpp ah, na bàyyi fi mu jàpp fi lii feeñ ma koy wéyalee te moom lu muy def da koy appel mais ba pare man du yeggali diagonal bi jargandalu day leer. waaw nga mën a dem jagonaal lool xandal ko. waaw balaa muy xalaat nga mën ñëw dëj ko. doole. Oh. booy jobaas mu ngi bëree. ci jom ci doole. bu daanoo démérité wul. waaye Sakho bit bu daanoo démérité wul. que le meilleur gagne. waaye ndeysaan boo xoolee ngeen mu gi nga xamante ni moom la sa yaram day daw. la lay daw mais mais mais Sakho bi ñu mais mais da liirul. xoolal ma. war na ma. doole daan na ko bëre na bëre bi daan na daan bi bëre na bëre daan na daan bi bëre na bëre bi daan na daan bi. mais boo ci bëre na bëre bi daan daan eh doomu Ama Balde la Pikine yëngu na doomu. doomu doomu Zil doomu Paate Balde la. xam naa ne solution bu mu bëggoon am na ko. waaw li daal doon jàpp ji da doon wóor. ko pour mu continuer. kii. kii mooy taalibe Bamba. la ma log la. yàlla yàlla <laughs>